continuer di gérer suñu réew mais vraiment loolu daal la ñuy moom mu yaatal mu yaatal géew gi ba ku nga nekk nga mën a doxal sa droit incha merci je pense que monsieur Ngom juste nañ ñëw ci première réaction ndax sànq yaa ngi may woon euh, interdiction beneen boo xamante ne préfet yónnee na leen ko bi nga xam ne yéen woo digoon mm-hmm. ngeen askan wi ne euh, di ngeen danaka chaque semaine di ngeen déposer ngir ngir def manifestation ñoo ngi ci ñaata jamono ji ñu interdit bu ñu bu ñu teree cumulativement maanaam suñu xoolee maa ngi doon déglu sax benn jour Babacar Fall mu ngi wax ci télé bi naan depuis le début de l' li nga xamante ne moom la jot a interdire en matière de manifestation ci réew mi daanaka moo ëpp sax nombre de jours de l' année ndax ndax non donc donc dans dans ce cas dans ce cas Fatou Ngom démocratie bi ñuy bi ñuy bi ñuy laam-laamee ci ci ci réew mi je pense que c'est ça notre dernier point la ñuy attaqué euh, li nga xam ne moo di euh, deuxième point bi euh, démocratie gi ñuy jii nii politiciens yeeg ñi nga xamante ne ñoo di les gens de la société civile maanaam mm. képp képp képp koo xamante ne bokkoo ci nguur gi sax mën naa wax ne waroo yëngu waroo bouger waroo wax waroo mbib waroo def dara. la démocratie souffre euh, Jérôme loolu moom euh, foog naa ne soo gëmmee sax da nga koy gis. Mhm. la démocratie souffre et euh, interdiction léegi dafa mel ni moo nekk euh, règle. Mhm. autoriser manifestation léegi moom mooy exception. Mhm. et pourtant on constate que de l'autre bord on se rassemble. Euh, comme on veut quand on veut parce que bi fi président waxee ne du def. Euh, troisième euh, mandat troisième mandat troisième candidature. parce que troisième candidature ak mandat du benn. rien ne disait que su posé candidature am dañ koy fal. Mhm. donc bi muy bi mu waxee ne il renonce la troisième candidature bi mu ne am na si droit même si constitution bu Sénégal leneen la ñu gis juriste yu bëri aussi leneen la ñu wax Euh, ay nitam organiser nañu benn séance d'acclamation devant le palais de la République et pourtant euh, arrêté Ousmane Ngom dafay tere ñëpp euh, manifester foofu mais dem nañu ba buntu palais tàcc ko bi fi suñu gaynde itam dafay jaloore si mondial bi les gens se sont rassemblés mhm. Coupe d'Afrique bi la mhm. ñu ñu rassemblé wu foofu mu génn saafonte ak ñoom en fait loolu munuñu ko comprendre sooy teree da ngay tere mu valable pour ñëpp sooy mayee nga maye pour ñëpp. Mhm. bu ñuy wax trouble à l'ordre public ak euh, yeneen risque de d'entrave à la circulation des personnes mais manifestation yi fi jot am yëpp ñu autorisé ko. Mhm. wax naa ko fi keroog dama koy waxaat amul benn bu ci débordé amul. meeting gënu rëy mitin bi euh, Pastef defoon Kër Massar. dara xew fa les gens sont venus sont rentrés tranquillement parcelle bi fa amoon noonu la manifestation yi ñu jot a autorisé centenaire ak fu ñu ko mun a autorisé si c'est encadré dara du xew mhm. kañ lay am trouble vraiment mooy suñ ko teree Euh, nit ñi forcé contrairement peut-être ak F24 mais je pense que à ce rythme kenn xamul ci ban Sénégal la ñu jëm mhm. donc la démocratie elle est vraiment euh, elle a mal elle va très mal te mhm. je pense que intellectuels yëpp dénoncé nañ ko maintenant il faut que ñu trouver les voies et moyens d'arrêter ça mhm. parce que dëkk mënul continuer di doxee nii loolu dafay indi ay frustration yoo xam ne dinañu yegg benn époque duñu ko mën a contenir ni ma ko waxee keroog da ngay may nit ñi ñuy génn di wax seen ay naqar mhm. di manifester li leen métti euh, mus naa dégg benn mag mu ne Sénégal bu tàkkul ba léegi nañ ko santee wax sa xalaat yi yéen sax gis naa ne yéen a ngi ci wax sa xalaat <laughs> mais parce que nit bu amee lu ko métti mhm. da koy may mu wax ko mhm. cin buy baax nga tëj ko géram da ngay dégg ni muy tëf tëfee te am na benn instant boo xam ne kubéer gi buy tëb da lay bett te bu tëbee lan lay def comme jéeya kenn xamu ko dëkk yu bëri tàkk nañu c'est parce que dañu accumuler ay frustration dictature fu mu am nit ñi xamal ne ñoo ngi dajale ay mer di dajale ay naqar il suffit de peu pour que mu tàkk mars 2021 ñu bëri nee nañu c'est pas seulement l'affaire Ousmane Sonko moo yëkkati nit ñi non mais dafa fekkoon nit ñi mer fii chaque jour nit ñi am dañu sonn covid ñëw nga tëj nit ñi yeneen ak yeneen ñëw ku bugg a manifester nga ni ko doo fi manifester ku wax nga jàpp tëj di rey nit yi ñaata famille tey ñoo fi nekk endeuillé xamuñu lu rey seen doom te ci loo xam ne teguwul fenn événement yi passé am na ci koo xam ne dafa génn di doxi soxlaam ñu tiire ko bal mu faatu man gis naa ci koo xam ne liggéey la doon defi c'est un artiste ki mu dëkkal sama xarit la mhm. nii dama ko nettali mu ne ma dafa wàcc di dem bal fekk ko fa marché aslem dooruñu fa koo xam ne commerçant mais ñooñu seen ay mbokk da nga xam lan la ñuy ressentir frustration yooyu ñu dajale monsieur Mbodj xëy na bis dina woote rek nit ñi ne on en a marre ñëpp génn lu ñu gis yàq lu ñu gis toj parce que dëkk bi nag quand ak nu ñu mën a mel. Mhm. ñëpp xam nañ ne suñu réew la dañuy dem bàyyee ko suñuy doom ñoo ñu dem bàyyee ko ñeneen donc personne n'a intérêt di yàq dëkk bi. Mhm. wala di ko taal wala di ko toj. ñi ñu jiite ñoo war am intelligence su di gérer frustration yi parce que jamono dafa metti nous sommes dans une crise boo xam ne ñëpp sonn li nga doon dépensé daaw jéeg. Euh, tey double bi wala triple bi moom ngay soxla te mhm. du tax nga am dund bu ñoŋ loolu li muy def ci nit ñi ak euh, stress bi mu leen di teg leneen loo ci dolli dafay ëpp d'accord monsieur Mbodj euh, votre réaction sànq maa ngi doon wax ne interdiction yi daanaka dara dina seen kaw man damay laajte yéen ndax kañ ngeen nar a arrêté su fekkee ne saay saay su nekkee da ngeen di ñaan ñu ne leen déedéet déedéet déedéet. mais ñun suñu slogan mooy bu ñu sonnul ñun duñ tàyyi ñoom bu ñu sonnul di interdire. Eh. ñun duñu tàyyi en man nee nañ ma mortal moom daanaka moom du ci tàyyi. waaw waaw <laughs> léegi affaire bi léegi la génn dix neuf dix la génn interdiction bi léegi la génn dix neuf heures. Mm-hmm. xam naa léegi laa ko jot. donc interdit nañ ko mais. pour quel motif. les mêmes motifs les mêmes motifs même chose même chose donc euh, waaw léegi waaw kii bi dañuy mais mais maanaam kon kon réew mi depuis mois de mai. waaw amul benn depuis le 12 mai. amul benn autorisation bu ñu permettre F24. mais loolu comme ni ma ko waxee ñun euh, defuñu course de vitesse. Mhm. Mhm. course de fond la ñu def. Mhm. c'est-à-dire que accumulation ñëpp gis nañ ñëpp dégg dañ ko retet xam ne ñii bëgg nañ jàmm. ñaan nañu manifeste jàmm ñu tere leen ko ki leen ko tere nag dafa bëgg ñoom ñu génn ci mbedd ñu feete leen. Mhm. te ñun loolu la ñu bañ. parce que bu fekkee dañu dañ jàpp waaw ah NPR dañoo ragal mais loolu euh, ku koy wax dafa fekk yow bu ko jàmm ci réew mi. Mhm. parce que ñun ku ñu xam-xam ne du ñu ragal d'abord. Mhm. Euh, vingt euh, vingt trois juin ñoo fi nekkoon. donc ñu mais Sénégal yi du ñu ay ragal de mars wan nañ ko juin bii wan nañ ko du ñu ay ragal. mais ñun dañu ne il faut jiital xel. parce que du ñu topp rek ñuy rey xale yi di leen tëj di leen gaañ ñu continuer noonu il faut ñu changer te loolu euh, li ñu bëgg mooy ñu génne prisonniers yi li ñu bëgg mooy que éligibilité candidat yi. Mm-hmm. ñoom Bougane Gueye ak ñoom Sonko ñooñu ñu régler ko. Mm-hmm. loolu ba décembre ba ba conseil constitutionnel di joxe. ñu ngi ci. donc am na ñu jot boo xam ne dañu wax nit ñi. Mm-hmm. fi mu nekk nii mooy toog fi ñu fi ñu toll. mooy sensibiliser wane ne waa nguur gi duñ nekkuñ état de droit duñ ay démocrate ay dictateur lañu wane ne ñoom bëgguñu jàmm parce que li ñu bëgg mooy kaw ci réew mi mooy li ñu bëgg mooy euh, dugal ñu ci bedd mi ñu rey leen tëj leen kaso te ñun loolu la ñu moytu bu ñëpp jàppee ne loolu la ñëpp jàpp ne ñii kat tappale lañ fi nekkee manipulation ak violence bu boobaa frustration yi bari na déjà mais bu ñëpp jàppee ne fii kat jàmm lañ fi bëgg jàmm bi dañ ko am parce que ou bien am na loo xam ne moom kenn mënu ko maîtriser. Mhm. parce que la goutte d'eau qui fait déborder le vase kenn xamul fan. la jógee loolu moom kenn mënu ko. Mhm. mën na am suba la mën na am octobre la mën na am décembre la. Mhm. mais ñun li ñu bëgg mooy mu bañ a am débordement. li ñu bëgg mooy ñu am li ñu bëgg càmm mooy bu ñu nee dañu bëgg euh, Dakar ville morte xam nga loolu kenn mënu ko tere. yow man ah, man moom mënoo maa tere liggéey. waaw da nga ma naan bul liggéey ma ànd ak yow du ma liggéey mais quand même mënoo maa forcer bokk ma dem liggéey. waaw waaw kenn mënul tere kenn mënul wax ni nii euh, oto yi. nañ daw bu oto yi taxawee par. gis nañ sax bi fi grève tataay amee daanaka on la donc donc nañu am ay forme yoo xam ne ñëpp dañu naan liikat mooy jàmm ci réew mi. Mhm. moo baax ci réew mi ñëpp ànd ci bu ñu amee majorité bu ci ànd. bu boobaa Sénégal yi ñu xam ne pendant une heure de temps pendant deux heures temps benn yoon ñaari yoon. bu boobaa ñëpp dañu xam ne kat jàmm ci lii rek bu ñu tëyee ba të. mais euh, gëm naa ne bu élection ñëwee mënuñ ko gagné. donc il faut ñu ñu def ndànk ci affaire yi. Mm-hmm. waaw léegi nag comme j'ai dit am na loo xam ne moom. ça n'est pas maîtrisable. mooy guddo boobu. fan la xale yi di frustré taw. mais ñoom am am na am na ko ma doon envoyé message naan ma ko naan ma est que duñu soo tëjee Sonko ci kaso bi itam. naka moo leen moo plombé sax waa F24 ndax nee nañ ne moom quand moo nekkoon force bi nga xamante ni moo leen gënoon euh, may souffle. parce que doole ji nga xam ne moom am na ko ak ni nga xam ne moom na ko xale yi déglee daanaka sax moom ni mu tëjee kaso si nekk na ci li nga xam ne ne bokk na ci li leen plombé mais loolu loolu booy dëgg c'est-à-dire que euh, am na force de frappe de mobilisation bu tax 2021 tëjuñu ko mhm. parce que bu doon bu doon neneen tëj nañ ko tëj ko ci kaso bu yàgg juin bi bu doon loolu tëj nañ ko jàpp nañ ko toroxal nañ ko bu yàgg donc loolu moom c'est incontestable mais lan la jur c'est-à-dire capacité de résistance boobu am na lu am am na lu tax euh, Macky bàyyi loolu ci la bokk donc capacité de résistance boobu xeex boobu xale yi wane. Mhm. am na amal na démocratie njëriñ. Mhm. mais dafa am ay limites maanaam fi mu nekk nii. Mhm. Sénégalais yi li tax am na ko léegi boo wootee du ñëw. nee na parce que parce que Sénégal yi dañ waaw intimide nañ. Euh, intimidation bi am na ci mais dañu dañu sonn. dañuy gëm ne boo xëy na lii c'est pas la seule solution. yaay a une autre solution. Mm-hmm. donc li li ñu bëgg mooy jàmm. puisque jàmm lañu bëgg nag nañ leen nañu topp ci ànd ci jàmm ji. d' léegi léegi léegi Cheikh réaction mm. par rapport à ça ñoom nee nañ jàmm lañ bëgg Sénégal ñu ñëpp moom lañ bëgg mais tamit ndax jàmm bokku ci ne nit su bëggee euh, daanaka yow maag yow tey suñu aman am lante woon tey xam naa day xanaa di nga ma may kañ ma dem sa kër sax wax la li nga xam ne moom laa la bëgg wax nga mm. déglu ma soo mm. paree sax nga tontu ma mais lu tax nguur gi mënul may waaye F24 au moins 4 mois après même su fekkee benn sitin nañuy def ñu ndax man maa ngi fàttaliku si waa waa Walfadjri bi ñu bëggee def sitin mais seen biir seen biir màkkaama ci bund bi mais ko dañ leen dañ leen ko daal tere mm. ndax aussi duñ mënuñu may au ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a manifester ne serait-ce que benn yoon ñu manifester. waaw xam nga sànq wax ngeen si waxu Ousmane Sonko Ousmane Sonko li mu wax mooy dëkk président Macky Sall du kuy négocier président Macky Sall doo am dara ak moom si négociation. Ah. et on a mais mais gis nañ ko. Ah,